maa ngi leen di fay. Euh, gis nañu muy loo xamante ni ko askan yëpp gisee rek noonu laa ko gisee man dama jógoon dama doon mission maa ngi doog a ñëw barki démb bi may ñëw avant may ñëw Sénégal bi ma nekk États-Unis xam naa ni Khalifa cinq ans lañ ko condamné. dèjà am na seen euh, collègue yoo xamante ni waxoon naa leen condamnation Khalifa. ndax état bi si boppam ñoom ñoo ma xamal ni ma xalifa dañ koy tëj ndax soxla wuñ si moom xaalis du mbay nekk candidat comme ñoom ñoo ma waxoon loolu en tant que parlementaire xam naa ko yoon defutoon ma bañ koo wax waxoon naa ko askan wi ñëpp déggoon nañ ko ndax état Sénégal ñoom soxlawuñu xaalis bi nga xam moom lañ wax ni moom la Khalifa Sall jël soxlawuñu ko bu ñu ko soxlawoon jàpp naa bu ñu dee war a jëlaat xaalis bi delloo ko askan wi nga xam ñoom ñoo ko moom mais yàlla dogal na soxlawuñu xaalis bi condamnation bi lañ soxla woon am nañu ko li des nag mooy peuple bi wàcc ci mbedd yi pour maanaam xam ni yëf du yëfi Macky Sall du yëfi baayam du yëfi yaayam Sénégal la ko moom Sénégal pour ñëpp la pour tout pour ñëpp la il faut que ñu liggéey pour man fi jëlee Macky Sall 2019 sinon moom fa muy jëm réew mi du baax. aussi leneen li si toppaan mooy ku ne xam na ni ñu ngi si eh, yoon boo xamante ni yoonu baaxul la maa ngi lancé appel kilifa diini ñu wax si ndax wax dëgg yàlla tekkaar gi dafa dafa dafa doy aussi ndax eh, ab dëkk boo fa nekkee ka fa nekk faalewul gañ yow ma xam yow la yàlla jiital ci bopp eh, kilifa yi nekk kilifa diini il faut ngeen wax ak ñoom ndax lu mel ni bu fi tey Alaaji Baara mu Sëriñ Fallu nekkoon du am bu fi Sëriñ Abdou Aziz Sy Dabakh nekkoon kon du kon nag bi naqar la nañu ko mais état Sénégal pour bañ nekk candidat comme ni Karim Wade di a nekkee noonu lañ si jublu woon am nañu ko pour ñu ngi xoqatal nit ñi aussi mais il faut nit ñi tamit am ay matuwaay ak ay responsable xam ne réew mi seenum réew la ñu bañu ko bàyyi ci loxo yoo xamante ndax ki nga xam moom moo jiite réew mi nasaraan la fi nekkal. parrainage parti yi waaw parrainage parti bon ñu ngi si procès bi jot nañu dossier yi mais waxtaanu gun si amagul maanaam calendrier boo xamante ni mooy nekk plénière mais li si am mooy dañ koy naxarlu te di ko ñaawlu te daan combat tout pour mu bañ a ñun nag ay député lan peuple lan fi nekkal lu xew daan ko wax waaye nag pour ñu jël ay acte ak ay matuwaay peuple moo ko mën a def. l'essentiel que ensemble dañ fa toog ba loolu du jàll mais ku ne xam na ne amuñu fa maturité li nga xamante mooy maturité bi ëpp solo mooy maturité peuple bi ni ñu ko defoon le 23 juin bis bu ñu yégee ni maam ñu ngi dugal loi bi ñoom ñëpp ñu xam ne loi bi loi Macky Sall la ngir bañ maanaam nit ñi bañ a ñëw pour bokk ay candidat ñii éliminer leen ci justice ñii dañ la éliminer aussi ci ci ci parrainage bi ndax li ma lay li ma la si waxal rek lu tuuti tuuti loo xamante ne nguuru Macky Sall dèjà fi mu toll may wax yow pare nan am ay nit yoo xamante ne nii ñi ngi ko teg sama wet man mii ni bu fekkente ni maa ngi laaj pour permanence pour bokk gis-gis ñoom ñu jox ma seen nit bu ko defee bu nee ba nga xamante ne déposé nañ ko ñoom ñu xam signalé wu ni si ñoom si waa appel lan bokk bokkuñu si ni ñu yàq candidat président Pape Diop c'est-à-dire lu mel noonu nag dafay nekk loo xamante ni ñoom dèjà si loolu la ñuy liggéey mais li am solo mooy dana daje ñu responsable yëpp moom si doon wax ak soxna si nga xamante ni moo wootee jotaay muy la dame de fer jigéen gu jàmbaare goo xamante ni wax dëgg yàlla ku ne xam ne mobilisation bi ak ni mu jàmbaare ci loo xamante ni mooy jëmee parti bi kanam di jëmee dëkk bi kanam aussi tamit ñu ngi koy encouragé te di yëg mbooloo mi di la xamal ni wax dëgg yàlla ku mel ni moom jafe na lépp loo xamante ni woote na ko njariñu parti bi la njariñu réew mi la ñun ñëpp ñu àndandoo nekk benn pour fexe buñ si àggee responsable bu nekk nombre personnes yi la laaj nga joxe ko comme ni ko parti bi soxlaa ngir muy ñoo xamante ni même bu fekkee sa famille lañuy doon sax muy sa famille bopp muy sa këru bopp bu kenn ku nekk joxe lu ma ñaar fukki nit département Mbacké Touba daw ñu am maanaam liñ soxla ñu dem si benn département ko noonu ñun noonu ko bëgg a mais en tout cas da nga koy préparé avant ñoom ñëw ñu ngi ci ñun dèjà ci lañ continuer réunion boobu noonu démb laay doog ñëw fekk naa fi loo xam ne dal na samay xel parti mi ngi dox incha allah dañ si continuer pour xeex ba loolu du am ñoom dèjà ñu ngi waxtaan pour ñu ko retirer. ñi ngi xaar nag ba xam waxtaan bi fan lay toll incha allah. jërëjëf pop bi lay laa si appel bu ñu si àggee ñu xam ni procès bu jàllee mooy candidat du am Sénégal ndax Macky Sall pare na képp ku mu neexul doo bokk ndax fan koy àttee ñoom dong ñoo fay nekk muy ñoom conseil constitutionnel bu ma laajee ma joxe ñu laaj keneen mu joxe ñu laaj keneen mu joxe bu leen neexee ñu jël ay nit dugal ko ci man ci ñi ma joxe su boobaa bu ñu ko signalé daan wax waa conseil ni leen kat diw candidat bi mu joxe ku tudd nangam a nangam bu si wala si ñu nekk feneen waa APR noonu la ñuy fi ñu toll may wax ak yow dugg nañ si Touba di laaj carte yi ñu téye seen carte d'identité ñi fi nekk ñëpp pour bañ ko joxe xam ne ñoom li ñu soxla mooy fexe Euh, ndaqaral candidat yi nga xamante ne ñoo waroon a déposé mun leen a jàpp si kaso bi ku si mel président Pape Diop ak président Idriss Seck pour ñoom ñaar ñu jéem a xool nan leen naqaral seen candidat jéem a xool noo xamante ñoom la tànn mbër nag mënoon da nga gemm nekk si làmb ji di bëri te doo bëri kenn te aussi il faut moom mu ñeme mais Macky Sall ku ne xam ne ni amul fit dafa tapet léegi nag tapet boobu mu tapet moo tax mu bëgg sukkandiku ci loo xamante